Thank you. te borom boo xam ne yàlla moo gën a rëy ci protocole bi moom mi nga xam ne moo yoon summa amaatahu wa aqbarahu summa idaa saa ansalahu mais nit nag moom moo rek a faw moo tax mu ne kallaa lamaa yaddi maa amarahu mbokk yi na ci islam lu mu ci jàngale imma rawdatun min rawaati janna aw xufratun min xufat naar li ngeen yaakaar ba yéen ñëpp ngeen daje ba ku nekk ci xel-xel loolu li mu leen li ñuy daw bu dara nekk te yëpp moo gaaw a fàtte loolu nga yàlla di fàttali mooy lan yaa ayyuhal insaan ma marraka bi rabbikal karim yow doomu aadama lan moo la fàttaloo bi rabbikal karim lan moo tax place lan moo tax daraja lan moo tax man ma marraka bi rabbikal karim alladi xalaqaka fa sawwaaka fa adalaka fi ay suuratin ma saa man ana imam bi baal ma rek imam lan mooy loolu wër ak lan la yeneen bi jàngale ginnaaw li ko amee ba pare ak lan ko mën a def mooy amuñu droit di jàng di teg parce que lii li ñu soxla moom mooy soxla wu lenn bu ñu yàgg soxla wu lenn beneen protocole bu ñu ko jox yàgg. waaye lii moom mënul nekk ay jàppante ak ay wax parce que moom soxlawul loolu koo xamee ne feebar na ay at topp est-ce que muy ñëpp ñëwoon nañ fi loolu ku nekk nga waxal sa bopp est-ce que am na ñu ngi sa seeti ndax am na ñu sax lañ bëgg dañoo bëgg ku fay ñu wala yàlla fay ñu ñaar yooyu rek moo am fayu yàlla ak fayu nit fayu yàlla nag moom du dee وللآخرة خير وأبقى fay nit nag mën na am poche yooyu gis nga ñaari fan li ngeen di waxoon moo ne damay armée yi moo koy nekk yaqul insan maali maali maali sama alal sama alal sama alal. lan nga am sama alal ji. illa say alal fa abdaytahu loolu la rab ëllëg ko sànni ko aw akatahu fa afalta wala nga lekk bu rees te xam nga fan lay aw sadaqta bihi fa amdayta wala nga dabal ma sa bàmmeel te loolu mooy ngir yàlla may leen imaam yi may leen kilifa yi ngeen jàng ci diin parce que ñun dara du jëriñ ñun suñu yoon yàlla nee na dañuy xool ñëpp parce que loolu lépp day jeex tey jii kii dem foofu laa mujjee merci haramun لكل أعلام شهيدها من بين أعين تتقبل الأرض والسلام عليكم assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu da ngeen di déglu tuuti ngeen may ndi xiw yi te loolu di ñu si yàlla Pa Sané bu dëkk fii yaay lan ci la Sané bu dëkk fii moo parta dégg moom laa yoroon waxtaan Sané Congo man mii taxaw lii njëkk yi ñu nga def mais man kese lañ ko def kon ñun ha xalaqnaakum wa fiiha nu'iidukum wa minha nuxrijukum taratan uxraa ñun ñëpp yàlla dama ñu bind te yàlla dinañu te bu yàlla ngay dina la fi génne comme sallallahu alayhi wa sallam mu ne al mawtu de yaati baxtatan mu ne te préparé te te war a ñëw di préparé mais malheureusement bu nit ñi ñëwee boo leen waxee déglu leen ñu topp coow yi tëj nag war la am coow su ngeen amee coow ak mariage tëj daa war a am tekkaaral ku romb xam ne lii tëj la waaye war a nëpp woon na ko bi xëy yi Pak Amay kan kii Thank you.